nga lu ci neex ci sécurité. Hmm. tey commissaire Pikine bi. Hmm. moo ñëwal boppam. mi ngi nii muy commissaire Ba moo ñëwal boppam. kon donc yéen war ngeen a tiit yéen ñi nga xam ne da ngeen a def lu bon war ngeen a ndax commissaire bu jógee commissaire Guédiawaye jóg na. Hmm. commissaire euh, central Guédiawaye dina ñëw. DSP ñëw ñëpp jóg mi ngi niil boppam. képp kuy euh, élément bi mi Ndakaaru. commissaire kii kii mooy bravo inter bravo ngi nii commissaire Mané mi ngi nii. toog seen ginnaaw donc yëf yi pour wan leen ñun pare nañ. yaa ngi de ñii nag lii nekk ci fii ay siège yooyu lañ bëgg mu deñ moo tax ñoom ñu jëlal seen bopp xam nga kilifa yu toll nii buñ déplacé woo war ngeen xam ne am na luñ nar. Mm-hmm. na gaa yi góorgóorlu. Mm-hmm. bàyyi caaxaan yi. Mm-hmm. nañ bàyyi caaxaan yi. yàq chaise ak agression mënta ne. ku ko def ci làmb ji aussi sama gars yi dañ lay def li la war a def rek mu jeex ñuy gërëm nag autorité police parce que jàpp nañ ci xam nga suñ déplacé woo juma heure bi kilifa kii kii mooy commissaire pikin su bàyyi lépp lu muy def ñëw toog fii pour réunion bi c'est parce que am na lu mu bëgg xam nga ni kii aussi commissaire Mané bàyyi lépp lu muy def commissaire commandant Sallé Ndo ngi nii génn soog fee génn pour wala gars yi ils ont pris les choses à bras le hmm. li fi daan am dootu fi amaat hmm. dañ lay lëmbe bu gaaw ma ni hmm. niñ daan def sax gars yi yàq barrières yi yàq chaise yi ñu leen di baal amatul civil yi ñu dégg ci biir civil yi nga xamante ne. mais civil yi ñooy ëpp ñu ne ci biir ñi ñu sol tenue ñiy sol civil ñooy ëpp ñi ñu sol tenue te naa la wax benn secret xam nga commissaire ba day ñëw ci laam ji mais doo ko xàmmee. Mhm. yaa ngi dégg. loolu rek doy na. kon daal ku bëgg jàmm mën naa ñëw ku bëgg leneen. ku bëgg leneen nga ñëw fek ko fi. fii moom amul caaxaan fi ñu war a jaar dinañ fa jaar fi ñu war a dugg dinañ fa duggee lu fi ko fi indi leneen lu dul noonu sama gaa ngi nii pare nañ mais il faut aussi ñuy gërëm autorité yi waaw autorité police yi dama bëgg ngeen dima leen gërëmal parce que liggéey bi ñuy def vraiment xoolal lii ñuy dañoo bàyyi lépp lu ñuy def xam nga ni nee naa la bu commissaire u Pikine ñëwee rek jeex na te bu ñëwee comme commissaire central u Guédiawaye nga taxaw donc war na làmb ji tey gars yi niñ ko jëlee siège moom ko ko def ba yërëm naa la. commissaire lan la mën a dalalee xelu. amateur du wax ñoom du ñu wax. Hmm. ñoom du ñu wax maay seen lantinoor. Hmm. du nu wax. dañuy jëf. Hmm. ñoom dañuy jëf. pour ay wax yi nii. ñoom duñ ko def ñoom dañuy jëf. te dinaa la wax benn affaire de. ñii daal ñoom pare nañ. jërëjëf commande waaw. nga ñu ngi noonu di dem mbokk yi. mu jëm ci combat boo xamante ni combat bu mag la gis nga xale yi macha allah takk der ñu ngi noonu pour ñëw rassurer li nga xamante ni mooy sécurité bi ci jouru Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 ndax combat la boo xamante ni kii Pikine jàmm gën caara yi fépp dañuy ànd ak moom kee Fass Gueule Tapée Colobane gépp dañuy ànd ak moom kon ku ciy ñëw ñu ngi lay ñaan ngir yàlla war a sóoli nga ñëw ci jàmm seetaan ci làmb ji ci jàmm bu ñu daanee sa mbër nga gore xam ne sport la ñoom ñaari mbër yëpp ku ci nekk am na ndam fii ci stade bi ñoom ñaari mbër yëpp ku ci nekk daan na fi jël bu rëy fii ci stade bi kenn daanoogu ci ci ñoom ñaar kon ci stade bi kenn daanoogu ci muy Coly Faye muy Ada Fass te faw am ku ci daanu kon yéen ñi nga xamante ni yéenay ànd ak mbër yi am leen xel bu rafet ni ku ci nekk sa mbër mën naa am ndam waaye ku ci nekk sa mbër mën naa ñàkk ndam bu ñàkkee ndam na ngeen gore fair play ànd ak ñoom gunge ko ñaanaat yàlla beneen bis bu ngeen ñëwee fii yàlla may leen ndam ñu ñëw ci promoteur bi nga xamante ne moo waral bis bi kaay. jërëjëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi fii ci arène national kii mooy petit production moo organisé bis bu rëy bu dox ci diggante maamal euh, ci diggante Coly Faye ak xale bi di Ada Kalso 94 Lamine bu Loora mu ngi lay nuyu. nee na nit ku baax nga nit ku yaatu nga nit ku rafet xol nga mais man maa ngi nuyu. Euh, sant yàlla Serigne Mor ak sama gaay yooyu. di leen wax li ah dégg gu ma mbéyee nag maa ngi leen di xaar. ah Lamine faw du ma la ñàkk amaguñu mbéyee. tey ñëw nañ fii ci réunion sécurité bi yan lan nga mën a rassurer ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi. ak supporters yi war a ñëw ci làmb ji. waaw ginnaaw loolu ma sant di sant suñu ñaar waa ji sant suñu sëñ si Abdou Karim Mbacke baax. Mm. di sant Sénégal ak axlu làmb gëpp xam nga mm. di sant tey waa CNG ak sécurité bi nga xam moo fi ñëw tey di sant LPFL ak Petit Production parce que ñoo collaborer benn la. Mm. ndey ak baay ñoo ko bokk presque rek ndax ñoo bokk lépp ñaar jëm ci bés. comme bés bi ñu mën a jaratu ñu naan le 26 mën na leen di dimanche. ñu ñëwoon fii tey pour waxtaan ak li nga xam mooy sécurité bi. ñu tey suñu xel dal na. parce que plus de huit cent policiers mbaalu ko dinañ ko gis fii ñi nga xam ne mooy aada Fass sécurité bi ci moom nee dinañ dem fi nga xam mooy Fass jële ko Fass indi ko ci arène bi mhm. mhm. kon loolu xel daal na képp koo xam tamit jóge nga sa kër pour ñëw séance lamb mhm. soo ñëwee di nga am lamb ju neex di nga ko am ci fair play parce que di nga am sécurité bu doy parce que lamb sécurité moo koy def waaw sécurité bi ñoom assuré nañu lépp li nga xam a am ci a indi fii ñoo ëpp fuuf sécurité yi police yi nga xamante ne ñooy. sol yaay noo ji leen yoo xam ne moo gën a garaaw. ñi nga xam ñooy ñooy civil yi ñoo gën a bëri ba pare caméra surveillance gis fii boo ODK ki jóg foo mun a jóge ci àdduna caméra surveillance da lay gis te loolu dafa dal xel. Hmm. lépp loo xam ne ni def nga ko fi yow yaag police la nekkul yaag jël nekkul yaag LP nekkul yaag petite production. Hmm. yow yaag gendarmerie la yaag police toog sa kër rek ñu xëy ne la koŋ-koŋ doomu diw ñu dem te loolu balaa caag nga ñëw seen mu jeex nga ji bi ndànk. Hmm. ci tabaski leen jëm ñu ñi war a ñëw ci fair play yar ak tegin parce que moom la ñuy jox ñi nga xam ñoo waa kër Coly Faye di ko jox waa kër Ada Fass mm-hmm. lamb dinoo ñëw fii pour yar ak tegin mm-hmm. ñu def fair play ay kilifa ñoo fa ñëw parce que drapeau Bamba Fall nekkul lu ndaw ku ko war a bëri da war a am noo mel mm-hmm. te tey autorité tey gémi ak zanamul tey ak civil taxaw ci bés mosu ñoo parce que xam na dëgg nañ rumeur mbër yi te lamb tey dépassé na ñi nga xam ñun ñoo ko teg muy LP ak Petit Production dépassé nañ ci niveau moo tax ñu daw indi wóolu li xewoon dimanche gis nañ ko. léegi nag CNG moom tere na lépp loo xam ne mooy pétale ak lu jëm foofu moom dugg si làmb. waaw képp lu ñëw moom daw ci digg géew bi. loolu sax ñun sax ñun li nga xam ne sax duñ ko war a jënd deux cent mille tey pour taal ko pour rafetal làmb sax loolu tere nañ ñu ko. kenn amul droit indi dara loo xam ne day tàkk si làmb ji muy sama làmb muy làmb kenn ak keneen loolu moom tamit lu ñu rafetloo ci CNG parce que tey làmb sport làmb tey dafa dafa dafa weex. Hmm. lu la ndaw bu ci laalee te nga gis caméraman yi ñëw gars yi ñëw ñii di wax peut-être yeneen sport ñu ngi fi am di am sport di am ay lu gën a garaaw loolu. Mm. te kenn du wax. Mm. mais ñooy sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne dimanche ku ñëw Ada Fass ku di nga gis kontaan. pour mm. pour pour sénégalais yi ñu comprendre li tax CNG bi tere pétale yooyu di ñëw dafa am ko fi ñàkk bakkanam barki démb ci combat franc ak sox. waaw dafa am ku ñàkk bakkanam balaa loolu sax ñoo ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale Pikine parce que loolu gënalul kenn mais li tax ñu tere loolu parce que tamit luy tàkk xamu fan lay daal. Hmm. parce que commissaire bi na am na koo xam ne moo langu ak moom boo xoolee bopp bi lépp dafa làkk. loolu moo tax ñu jël lépp loo xam ne day tàkk ñu interdit ko si làmb hmm. loo xam ne day taal tàkk rek pour rafetal jël daal yow jël say ko def sa bulo balaa mbaa sa rouge balaa tàkk ñëw ci saar bi tàkk loolu kenn terew ko kenn. Hmm. wala say manque. say manque ñëw parce que gis nañ bi passé ñu yor ay manque. parce que il faut gars yi di développer. di indi yeneen termes yu bees ci làmb. yeneen yoo xam ne boo ñëwee ci làmb tey ak say sopp dañu ah kii lim indi dafa rafet te loolu lan leen di xaar. ci loolu la xaar tey mbëri. stade bi suba ban heure ngeen euh, ban heure ngeen ko yóbbu. non à part de midi dinañ yi parce que tey fi mu toll nii képp koo xam ne tey bëgg nga biyee boo demee maintenant pro lavage mën nga fa am bii amateur mbaa nga am fa supporter hmm. boo demee caaro yi tamit mën nga fa am bii amateur mbaa nga am fa supporter mbaa nga am fa loose parce que dama bëgg lépp mu gën a yomb billet yi mu toll billet deux hmm. bi nga xam mooy publicité bi seen avis point com boo tapé di nga gis fi nga xam mu ngi war a gis sa pay per view ci mille huit cent francs mille huit cent francs loolu yomb de fii ci Sénégal mu ngi ko jënd par wéef par free money yëpp nga ko jëndee parce que carte bancaire boo nekkee extérieur. Mm. loolu di loo xam ne lu yomb la fii ci ci ci combat bu toll nii combat Ada Fass. qualify mm. mm. ñu jaale ko ci 1800. soo ñëwee ci saam ñu jaale ko 2000F loolu dafa yomb. même tribune kii non non loose bi mooy 10 000 ak 5000 amateur mooy rouge bi. verte ak zone la ñu li nga xam mooy ñeenti téeméer fi nga xam mooy VIP mu jaay ko 10 000 francs te gëm nañ ne képp koo xam ne teeluñu ci stade mu nga nekk loo xam ne làmb ji wax baaxul yeneen ak tal ak fekkee ba dimanche incha allah ñu ñëw réussir bés bi comme ni ñu ko yàgg di réussir parce que tey lu doy waar la ci làmb te histoire lam da ko war a binaat Ada Fass qualifié parce que tey boo dugg ci groupe whatsapp yi tey foo dugg daal Ada Fass qualifié lay waxtaane fépp foo dem tey ci garage yi Ada Fass Coiffure lañuy waxtaane mm-hmm. ginnaaw loolu ñooy sant ñëpp di sant ñi ci jàpp ñëpp di sant mon ami mon frère Galzo 94 ASC bi ñoom LP Events ji Pogba xam nga ñoom Modou ñoom dëgal bu ngoy sama gars yi sant ñëpp di sant Ndakaaru Idi ñoom Bakary parce que ñëpp ay sonn petit poste ay nit ñu bëri la peut-être ñun ñi ngeen di gis nii mais ay nit ñu bëri lañu muy sama côté muy côté bale di la sant di sant Lamine di sant Galzo mon ami mon frère kenn du moom ci réew mi sama xarit la. mais xaw ma ko war naa ko xam. non ko xam sama xarit la sama ah, nam. Galzo Lamine coupe war naa ko nit ku baax la nit ku baax la Baye sama xarit la ma sant di sant Amadia ak copain xam nga di sant Père Thioune di sant ñëpp xam nga di sant ñoom Pogba ñoom dëgal bu ngoy sama xarit maay sant ñëpp waa Ngoy Aliou Sow sama waa dëkk waa Bambey sant naa ñëpp gërëm ñëpp daal. jërëjëf am na solo mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous inshallah rabbi dimanche fii ci arène nationale Ada Fass Coly Faye dina neex dina yëngu Koña Boy Pire ñagas gorofil internet titulaire internet titulaire itilaire jona jona caatu kayere buusi ceeb bu xonk buusi ceeb bu xonk ma allah macha allah lépp dina neex amateurs yi ñoo la gën a xam sax li nga tëgg ngoma amateurs yi ñoo la gën a xam sax li nga tëgg mbokk yi di leen wax ne amaguma xaru tabaski maa ngi leen di déglu woo leen sama gaay yi di leen